mais keroog dama gis ambiance bi bom bi bi Balla Gaye nit ñi namoon loolu mu ñëw bàkku ñu wax mu jël suuf si xëppoo mu nekk leneen loo xamante ni dafay dafay mel ni dafay wane ne sénégalais yi dañoo namoon làmb wala dañoo dañoo namm ambiance man comprendre ma keroog parce que Balla bi ma gis mu xëppoo suuf si ak état de bi ma yor man gëj naa gis boobu Balla waa xam nga Balla Gaye mbër ko jur kuy bàyyam Double Less ku mënoon ci làmb ji du bàyyam Double ko mas a daan sax xam nga ni moo la man man Double Less mësuma dem këram. Double Less bàyyi Balla Gaye xawuma ma këram bañu ma fa dem nag mais yàllaa ko dogalul mais bàyyi ma mënoon ci làmb ji kon mbër mënulaa laa jur mu mel ni Double nga yor sutitu mbër ci làmb ji ki nangoon roi bi ci yow ñu joxaat ko bis ngeen daje ngay wiccax say picc mu attaqué la sa sutitu mbër jog te gaynde la te gaynde bu reggee dëgg day gësu te ñun ci suuf si lañu yàlla bind moo tax bu gësoo jël suuf si xëpp ko ci kawam te ñun ñuy suuf war a dellu ci suuf si loolu rek la ba nga laaj ma leneen